koy laal syndicalistes yi duñ leen dégg. Mm-hmm. Mm. fi leen di gën a dégg buñ demee ci wàññi paas ak ya ca aju. góor xuma te xàmmee nañu. <laughs> Pierre Mbaxane Gomis je vous salue. ñu <laughs> wax ko paas ak leen di dégg. nañu wax nii du la ko baal Pape Moussa. <laughs> Ah, gërëm. c'est pas vrai. Ah, seeni oto la de. ay xam nga xam nga xam nga je peux pas dire plus plus plus loin que mami li mu wax nii elle a résumé toute la situation mais en fait mesures yi ba xëy où sont les dix neuf euh, du ministre Mansour Faye. ana ñu. porte bagage amatul. fii lañ ko fi waxee. est-ce que ah, Versailles euh, amatul est-ce que vous avez suivi le procès du chauffeur euh, de six kilos mais saa da ngay déglu nga ne mais attends. cest naka la nit mënee am bii responsabilité yëpp ay bakkan ak bii euh, voilà quoi oyofal. Euh, Pape Moussa indil ma nii rek sa ay booy nekk ci ginnaaw bus bi. di karaté wanteeg langam. Mm-hmm. loolu c'est au vu et au sous de tout le monde personne ne dit rien fii ngay wax ni fi ñuy defee visite technique. la la la la vidéo qu'on vient de voir là leer na ma ne oto boobu am na visite technique. mais kooku kooku même bu amee visite technique danga ko war a euh, taxawal. car rapide yi nii ñoom ak Diomaye <laughs> ana usines yu ko doon defar. <laughs> nga ni <laughs> kenn xamul. kenn xamul mag Diomaye fekk. fan foo koy jëlee. foo foo koy jëlee ma damay topp car rapide yi pour xool ñoom fan la ñuy euh, solee euh, carburant ah. mais ak la ban ban xeet parce que euh, pollution bi ñuy dégager je me dis que ni carburant bi ban façon la da nga beneen xeetu mélage la bokkul ak yowoon. Ah. mais te te au Sénégal bon. kon du gasoil. bokkul ak yi di gars yi def ñoom daal beneen xeetu mélange mais très rare ngay gis parce que dama ko seetlu quoi gis ay car rapide nii ci station. Euh, bariwul torop après je ma je me suis demandé mais pollution bi ci dëkk bi ñoom ñoo ko war a teg ci mhm. bon euh, mami souligné lu am solo mu ne euh, c'est pour le décor waaye ouais. am na benn acteur touristique bu ma wax loolu de bàyyil di wax nañu fi jëlee car parce que car dafa am benn euh, relais touristique boo xamante ne Sénégal identité am la bokk mais mais mais mais si ça remet en cause la notre su ci ay bakkandiroon waaw. Hmm. quand même nañ jël yenn à titre symbolique bàyyi ko ci site touristique yi nga xam te ne bu ñu. yóbbu ko ci ay musée distance yu gàtt la ñuy daw. <laughs> dara du xew. ñu jël touristes yi yóbbu leen. cette place amul mais buy def. urbain bi mais mën nañ jël ay ay yeneen. Euh, oto sax peinture ko comme car rapide. pourquoi pas jël bus yi peinture ko comme comme car rapide. am na ay festival ci àdduna yu bari yoo xam ne Sénégal noonu lañ koy euh, matérialiser car rapide. addu yi nga xam ne da nga ciy yéeg di seen tali bi de. mais yenn saa yi nga gis car rapide bu ah. guddee noo xamante ne yow da nga naan lii nu mu demee nii quoi mais gars yi ñoo ko defaraat maanaam kuy defar car rapide moo amatul. Mhm. léegi ñoom ñooy defar seen i car rapide <laughs> ñoo koy defaral seen bopp. Mhm. dëbb ko dëbb ko parfois tu vois ay ay ay kii wu bari ko la ñuy dagg. taal yokk xam nu muy dem demal centre ville bi yaakaar naa wetu. kon ci loolu la ñuy ñooy defar maanaam ñoo ñoo koy yenn saa nga gis car rapide boo xamante ne. saa waay euh, ah waaw. mooy en face su 45 place dina ko jël. parce que ñoom ñoo koy yokk. yokk boobu noonu mooy tax ne parfois même mm. euh, visite technique bi wala euh, kii d'origine bi du nekkati loolu. cette place musul am cette place bu ñu defar. mal ma la ñuy wekki tegee ne le jël yeneen ñetti chaise teg ci. Versailles amul ci oto. ñoo ko ñoo ko ci yokk. Sénégal am nañ fi à des fins commerciales. donc naturellement dafay nekk nombre bi mu war a jël mais surcharge la doon parce que ki ko liggéey ba ne la vingt cinq places la. Mhm. nga ñëw yokkaaleel ko ci dix Versailles. mais moom li tax mu ne la vingt cinq places la xam na capacité wu oto bi léegi boo ci yokkee ci ay Versailles rek tu es en surcharge naturellement. à cela s'ajoute porte bagage. te syndicaliste yi ñu fi tudd ah, xam ah, nañ. ko créé yoo ko créé. waaw tudd xam nañ ni. xool ba yàgg bu baax jox benn tranche boo xam ne souvent. oui wuy sama ndey. c'est comme mooy mooy ñàkk yar. xamuñu liñ téyelum gi ñu yàq yar. léegi léegi léegi bi chauffeur yi ñàkk yar aussi il faut nga ñëw ci. chauffeur yi d'accord ñiy samp nag ñoom ak ki ñuy sampal. ba pare di kaas. waaw parce que am na fu ñu romboon keroog euh, Pont Noir waaye fii boo fi rombee daf <laughs> foog nga samp xaw ma ñaata sinon boo demee doo dellu si waat maanaam euh, nit ki yor euh, l'homme de tenue est là mm-hmm. je sais pas s'il est mal payé wala moom moo doyluwul mais da ngay romb amoo dara nga samp benn 1000 francs 2000 tu passes tout le monde voit mais bon personne ne dit rien alors loolu nag wax dëgg yàlla ay mesures mm-hmm. ay mesures mënu ci dara ndax ay mesures jaar nañ fi jaarati fi il faut appliquer de manière intransigeante pour que lépp loo xamante ne ay infraction ci kii bi mais ñu koy punir à la hauteur de ces actes là mm-hmm. pourquoi pas def permis à point nga xamante ne yow tu n'as pas besoin di euh, joxe nangam day kii ñu lay supprimer sa point bala nga sa père bi. bala nga sa père wala ñooñu nga tudd ñoo taxaw. ñoom mbaaxaan ñoom ko ñoom xumbal ndax dafa am ay infrastructure yi ko war a accompagner est-ce que yooyu yëpp mat na. waaw mais ñooñu nu ñuy def ak ñoom nag. xam nga xam nga xam nga euh, syndicat bu ne day défendre des intérêts matériels et moraux de CP mais nañ na nañuy dañuy wax ak seen mais kan moo war a doon chauffeur. c'est ça aussi. très bonne question munoo yeewu jàng def BFM amoo rek jël sa oto di faralaay kan moo war a doon chauffeur ay nit ay bakkan ngay yeb. Pa Ousmane bu defee rëq-rëq ci métier pour man garaawul mais chauffeur bu defee rëq-rëq sa ay ay bakkan mën na cee roon euh, mais mais des fois tamit est ce que xam nga ni rëkk-rëkk ci métier loolu dañ koy war di sanctionner loolu mooy dëgg. des fois ci liggéey bi ngay def mën nga ci def rëkk-rëkk. nga wax ci nit loo xam ne du dëgg fa mu tëdd. mu am fa lu ko métti ba ba ba cardiaque fa. mais ñoom it responsabilité boobu la ñu am chauffeurs yi tamit ñoom ñu doy waar lañu. lu ñu mënti wax mënti wax ñoom ñoo ci ëpp. secteur euh, moo amul organisation. waa da ngay ñëw. mooy euh, Pa Ousmane dem na kaaw ba ñëw jënd benn oto jox ko jarbaatam mu bind ci ginnaaw merci tonton di def lu ko neex. xam moo koy sanctionné loolu tamit kaala. kat moo koy sanctionné. ak jërëjëf maa bëgg sama yaay ci ginnaaw. góone rek laay topp. waaw waaw ah na ah, ma ko yàlla baax na góone rek laay topp man rek laay topp ma ne ko yàlla baax eh, eh, comme moom ngay topp dawal nànk rek. Eh, oui ma wàññi. <laughs> moo combat mu ne gisoo ko ci taxi boobu moo combat daa xew. loolu rek a leen dese. ñun ñu bind ci ay moo combat rek a leen de la nag yooyu ma xamante dama yow xoolal ñaar ñii di ci kaw tali bi ah c'est tellement grave euh, problème la boo xamante ne boo ko fi tegee rek dinañ ci wax on en finir parce que saa su ne xaw ma ñoom concurrence moo leen dugal ci course bi wala wala immaturité parce que boo leen fekkee ci garage yi ñuy waxtaan mm. tu as l'impression que ay boy yu yore Nintendo quoi bi ma la rombee fii c'est ça lii laa kii nangam nangam non xanaa gisoo tournal bi c'est quoi cette réalité euh, vraiment c'est c'est c'est quand même. Euh, El Malick il a pour pour ñu jóg ci daal yi faut ñu def le ma gëmm dóor. waaw jóg rek jël ay mesures yoo xam ne dañ koy appliquer ci saa si. ñi ko xam ni lii mooy yoon. lay euh, sax wax na ko. voilà très xam nañu lépp mais bi mu koy wax da doon junju la xew ca Dakar dem dikk. Mhm. mais xam ngeen lépp ay audits yi ci am ak constat yi ñu wax ñu ñëpp xam nañ ko li des mooy appliquer bu ñu appliqué ngoone fu ñu jaar ba yëpp ñu. tàggoo ko lii lan la tamit. xam nga image bi du du fii lii booy dugg fot naa booy dugg Thiès. yaa ngi boo passé péage bi. ñàkk xam nga wala lan la. lii du ñàkk xam de xam nga reewande moom wax dëgg yàlla bu balaa ñu koy xam ne dëggantaan danga reew dañ koy jaawaleeg dof la wala nga dopparol ñu xam ne dangaa reew waaw dëgg la waaye léegi na nit bu reew dañ koy yar xam mënuñu fi wax ci accident yi loo xam ne Pa Moussa waxu ko yow tam waxoo ko mhm. waaye dafa am lu ko jiitu xam ne lan mooy li ko jiitu avant accident yi mhm. mooy bu accident seen photo ak seen ay téléphone di vidéo ñi gaañu ak ñi dee. loolu moom du yoon.